léegi ba ma demee côté marché ñenn fekk jeexal naa sax boobu dama doon ñibbi war a war a dem marché Ocass jëm jëndi tiise léegi nag ba ma ñëwee ba ci marché ñenn bi xam ma ma prolongé mooy fi ministère yi nekk ma jaar noonu ci marché bi man mosuma xam ne foofu am nay sax ma gis ay nit yi taxaw foofu noonu may continuer si continuer ba ci ba bëgg ak ci garage yi mooy fi sarret di nekk taxi yi fi may tourné yeneen ñaari booy kar ma taxaw sama kanam yeneen ñaari booy nek sama ginnaaw bo maa ngi ci mbedd mi di dox rek fii jaar nit ñi jaar rek man fa laa jaar di dox rek ndax bon boobu sorali wu ma dara wa ci marché gar bi lay nag ñaar ñi nekkoon sama kanam do no yor paaka man ñu yor paga paga bi nak la ñom ñom la doon xeex la paga yi la doon reporté man ma may ki paga bi bu ma ko mu daanu la ma dagg fii ci tawahi len gene ñom ñoo ngi yor ay gens yor ay sangara man maa bo ma ngi len di tek beut ni waane boobu awma ci ñoom soxla léegi nag ba ma tourné ba may tourné di ki lama ma kii ni birig bi mbir bi waa ma wàcc ma reporté sëgg sama jeune bi ma nekk fa di xeex ak ñoom di xeex moom jigéen ñi nekkoon si marché bi daw ñii di chauffeur taxi dugg seen taxi ba ma pare man leen yéen saa yéen ni ngeen def rafetul yéen seen mbokkam jullit bu xeex ba muy jóore war ngeen te mën a taxaw. moom dawul marchand ambulant boobee li ñu ko yóbbal ci ay koppar ëpp na ñeenti junni di ay robb yoo xam ne ñëwoon na ko ba nopp ngir jaar foofee ngir jëndi bagage. ci la mbir mi dale ci kawam. maa jeexaloon yor sama xaalis jot. ah daanaka motoon na ay six rob rob bu ne 4000 laa ko jaayee ah. waaw. ñaata la ñu kay xaalis bépp la ñu yóbbu moom. xaalis bi ñaata rob yëpp 4000 waaw dara ba ma moo tax ba ma ñëwee ba hôpital bu Touba bi bii mhm. yoruma lu ma fajo te mënu ma faa dem dafa fajoo waa ji ne ma si bi mu ne ma da ngay dagg tike 1500 man ko man yoruma lu ma fajoo man ko léegi da ngay ma dem Mbàkke ba ma ñëwee Mbàkke nag léegi foofu la, laa jël fofu la fajo kon nopp bi moom jamono ji dafa dag wa dafa dag ba ñaw waaw wa dañ ko ñaw Birik lañ ko dóor birik birik mom mo xamna naa ne ëpp na birig bu tollu ni na birik bi mom ba muy ñew ba ma dóor dama mir birik mom ba ma ko dóoree fii dama mir dama reporter dama mir waaw. no carpe wala mën na daanaka mën na 10 dang ndax boy amna ju toll ne ñu mag. amna ñeneen digg doom groupe wa do no bëri no man duma ma mom ndax deug yalla bu ma doon dessa duma du waaw bu ma doon dee sax du ma yoo ndax man lu góor laa waruma yoo lu may yoo laa xamut ndax man lii maa ko liggéey damay nekk ak ñoom ba dee rek man ba ñu ma woon ba dee sax. bokk na ci itam li ñuy ñaawlu gannaaw ñàkku kaaraange gi nga xam ne nemmeeku nañu ko foofee di gaar bu mag bu ñu sukkandikoo ci ay kàddoom bi mbir yi di xew nit ñi dañu ko doon seetaan maanaam kenn wàlluwu ko. moo tax frappé na ma damaa jaaxal man ba ma ko ji damaa tiit moo tax ma dal seen ko ñoom chauffeur taxi yi man yaakaar naa Touba moom lépp mën naa am fu ne waaye loolu moom du am ci dëkk bi dëkk bu sell bi Touba. fekk nit kuy dox bëccëg di ko agressé moom moo ngi fi maa ngi koy soogu ji sàmmal te man mii def la ma ko. ñaawteef yooyu nga xam ne dañu koy nemmeeku ci dëkk bu sell bi di Touba rawatina fi ñu wax gaar bu mag. waaye juróomu jigéen di xam le ne mbir yi bett na ko lool waaye tamit metti na ko di sàkku ci kilifa yi ngir ñu gën a taxaw ci ñàkku kaaraangi gu am ci dëkk bu sell bii di tubaa ñu ko reyoon tey ah dana ndax benn la amul rakk amul mag am ah, moom dong waaw njabootam ak ni jabaram ak dëgg yàlla mhm. waaw yàlla rek lañu yaakaar ak moom mhm. waaw hmm, lii de war nañ cee wax na Touba moom lii waru faa am Touba Touba ci boppam lii waru faa am lii waru faa ne waaw ndax kër diine la ñàkku karange googu tax na nag ndaw yi takki der yi nekkee ci guy mbind wàccoon fa ngir raxas bërëb boobu boobule ci ñaawteef yi nga xam ne daf fiy faral di am lu yàggul dara su ñu nekkee ci dëkk bu sell bi di Touba amoon nañu xemmemteefu nag marché boobee ngir defaraat ko laataa ñu koy defaraat nag ñaawteef yi ma ngay gën di wéy ca boobule bërëb. ak senevision.com la crédibilité notre credo. senevision.com wóor la ñuy di leen wéy di ñaan ci suñu site bi di